نبي الهدى في نومه وانتباهه الو البه allahu akbar maam ahmadou ndak mooy sunu sëriñ yàlla na ko jox muy sunu njëriñ nañ ko jàpp nañ ko gëm nañ ko bëgg nañ ci fiir wasalaatu wasalaamu ala albashir alhaadi ila surat almustaqim ginnaaw bi ñu sant sunu boroom julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal xalifa baay abdourahim ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu tëbb ko ak wér ak wérle sàmm ko ci zahir ak ci baatin projet yi nga xamante ni moom la am ci diine ji yàlla yombalal ko ko ba mu liggéey ko ba naal yeneeni projet ñu ngi yëkkati nuyób xalifa bi di ko teg ci loxol perefe préfet xalifa bi mu ngi lay nuyu mi ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax ñi ngi lay ndokkeel bu baax a baax ci yéene initiative yu rafet yi ak yéene sa yéene yu rafet yi nga xamante ni macha allah feeñal nga ko ngir gàmm gi aw ci yoon loolu macha allah ñu ngi la ci sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yéene yooyu yàlla na ko sunu borom mottali ñi ngi ñaanal bu baax tey sant équipe bi nga àndal ñu ànd ak yow teew fii ci réunion bii nii waaye nag ñi ngi yóbbante nuyoo tamit ci gouverneur euh, de la raison nga jotale ko nuyoo xalifa bi di nuyu bu baax su préfet bu baax tamit macha allah ah ñu ngi nuyu monsieur le maire. alaaji taala jaañ ci taxawaayam bu rafet ak farloom ngir liggéey ngir liggéey Thiénaba jëm ca kanam yàlla yàlla àggaleel ko ay yéeneem yàlla defal ko wér ak wérle ñu ngi nuyu bu baax alxaaji Jóob muy coordinateur bi moom la taxawaayam rafet na lool ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën kaa dolli xel mu rafet gën kaa wéral yàlla àggale ay mébétam moom tamit macha allahu ci liggéey bi muy liggéeyal Thiénaba ba ngi nuyu bu baax famille maam Ahmadou Ndaak Seck di teg nuyoo bi ci loxol sunu mag sunu kilifa sëñ Xalifa Ibrahima Seck sëñ ñaanal lim na leen te ñëpp xam na ni julli gi tey la ajjuma te ajjuma ji cate na lool man nag maa ngi tudd Cheikh Amadou Seck di nouveau porte-parole xalifa bi ah, bokk ci famille Amary Ndaak waaye samay baay nekk fi samay mag nekk fi samay euh, sama famille nekk fi ñu jiital ma ngir confiance bu nu am ci man ñu ngi yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla woyofal ma yan bi yéene yin am ci liggéeyal askan wi yàlla na ko yàlla sottal xalifa bi nag li nga xamante ni moom mooy ay mébétam ay projet am mooy li ñu wax fii rek ci jotaay bi bi ci jiitu mooy wàllu cet ndax jamono bii ñu toll te yaakaar naa bu ko ci ñëpp royee ci disposition yim ci jël yaakaar naa ne alhamdulilah lépp luñ ciy tiit du ci am ndax foo ko fekk mi ngi takk masque mi ngi néewal kemtulaay kàttanam nuyoo daanaka ku nuyoo rek sa xér nga ko nuyoo wala nga ñàkk xam ni xalifa bi du nuyoo waaye depuis feebar bi commencé ba léegi joxatul kenn loxo loolu nag mooy mooy war waram ndax kilifa da ngay jàngale loolu kon ñun ñëpp nañ ko ci jàppale roy ko ci moom dëkk bi nag comme ni ñu ko waxee rek nañu jàppale ndax projet xalifa bi mooy projet gàmb gi courant bi yàgg nañ koo tawat cara ba bëri na poto yoo xamante ni tey danoo daanu fiil ya ña nga ca suuf waxoon nañ ko fële ca euh, ca Canaba gaar loolu nañu ci jàppale ba poto yëpp ñu yëkkatiwaat ko buñ ko mané def potay euh yoo yo xamanteni sima lay doon moo ñu gënal macha allah ta poste courant bi nga xamanteni ni ñu koy demander ñu yombalal ñu ko ci nim gëna gaawé gaawee ndax mana ba léegi dafa yokku ci anam gu jéggi dayo ci diiru manam ñetti at wala bu ko tamit bokk na ci li nga xamanteni moy sétal dëkk bi nan fexé ba auto yi nga xamanteni wa ONAS ñu leen di jaajeufal ci seeni seen effort yi ni def waaye juróomi oto yu baax yu mën a dugg fenn moo gën fukk oto yoo xamante ni maanaam mënta dugg fu bëree bëri ndax oto moom bu mënta liggéey mën naa xëy suba commencé liggéey rek paan toute la journée di liggéey kon loolu nañ ñu indil qualité te ñu ngi leen di jaajëfal bu baax tamit ci année yi passé seen taxawaay ci setal dëkk bi ak viré fonce fonce yi mais aussi ñi ngi ñaan bu baax tamit ñi ni yónni si dëkk bi Thiénaba danoo am seen xususiya seen particularité ñu seeni jikkoom méngóog jikko maanaam dëkk ba ndax dëkk ba moom dëkk maam Ahmadou Ndaak Seck la mu fay tere euh, lépp loo xam ne dafa wuuteeg diine daf ko daf ko daf ko tere bëggu fa ku fa tux bëggul ku fa naan bëggul ku fa euh, def la euh, ku fa def leneen loo xamante daal charia da koy bàyyi da koy da koy da koy tere loolu ñu jàpp li ñu ci bu baax a baax ñañu fa yebal tamit muy sécurité bi nañu jàppale ci loolu Thiénaba koo fa gis muy tux da nga kaa war a jàpp moo kii sàcc ñu sàcc tux sax moo fa gën a garaaw sàcc ci ñun ndax xamuñu ko ak dama jël leen nag leneen lu dul tux jaxasoo ji góor ak jigéen yooyu yëpp fu ñu ko gis nan xam ni Serigne Thiénaba da koy tere loolu nu mu gën a gaawee nañ ci jël ay matukaay euh, bu ko defee tamit gàmm tamit ci jamono ni muy doxee il faut que ñu am réseau yu bax ndax réseau buñ ko amul kon kenn du mëna couvrir gamu gi ñi nekk ci biti ñoo ëpp fuuf te xam ngeen situation yi ni démé ñi nekk ci biti mënuñoo ñëw gàmmu si ñoo ëpp fuuf ñi gamu ci nañ ñu dimbali ci réseau bi Thiénaba fi ñu toll nii depuis un an ngi ni réseau du réseau du du Orange du Tigo du expression ben réseau doxu lool nañu jappalé bu baaxa baaxa baax baax di ñaan talibé yi tamit ñi nga xamanteni ñoy ñew nan and ak yar ak dal ak téggine ta top topp ya, instruction yi nga xamanteni mom la euh, euh, sécurité bi di joxé ak euh, président commission yi nga xamanteni ma sha allah ñoy yor liggéey gam gi nan jëflanté ak ñom ci ak dal ak wégel ñom ñun rek la ñuy liggéeyal bu liggéey bi baxé ñepp la baxal ah, di yeesalaat rek euh, cooti courant cooti bi dafa ñor lool xalifa bi ndax cooti ni mel ci ba tey bépp mu xaddam boo jël cana ba cooti lañ ko defalee tarbiya fa la jàngee kon loolu nañ ko bàyyi waat xel daara jooju nañ ko bàyyi nañ ko jël en compte jëm jàppale ci sëriñ bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala gàmm gi nga xamante ni moom lañ dëgmal lépp luñ ci yéene ci mu euh, ci lépp lu luñ ci jël ci ay mesures yàlla nañ yàlla defal tawfiix ban def lu kawe lu kawe loolu sax di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp lu ci waaye def rek yàlla nekk tawfiix di jaar jaal jëfal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. CDD bi doon jaar na yoon jaar na yoon pourquoi parce que préfet ni mu ko jitee dafa am solo trop vraiment moo fi représenté état bi gouverneur ministre de l'intérieur mais ni mu ñu dégloo. mais document bi fa mu mo am solo parce que ci sous préfet le jëkk jaar ñu càmbar point ñu soxla yépp bi mu ñëwee ci préfet liggéey bi dafa yàgg na gaa mais vraiment tegu na ci yoon bi comité d'organisation waxe tam gis nga sous préfet ni mu remercier comité d'organisation parce que organisation lu mu amul rek du mëna du mëna téggu ci yoon mais chef de service aussi ku ci nak jël nga engagement ba mëna joxal parce que au niveau départemental la joxal say ak euh, li nga xam soxla nañ ko au niveau régional ak au niveau euh, national kon vraiment duñ wax lu dul remercier encore le préfet du département de Thiès mais à travers le sous-préfet de Thiénaba ci taxaway bu rafet bi nga xam taxaw lañ ko mais le comité mais aussi la famille de Thiénaba ñëpp dañu tew jappando pour mëna bëgg dal téeméeri gàmm ak ñen fuk ak benn bu Thiénaba mëna tegu ci yoon en tout cas ñu ngi remercier aussi ki taxaw sawe gis nga c'est le porte-parole du khalif le nouveau porte-parole du khalif moom tam bi mu le cadeau. def euh, résumé wax na wax ju rafet rafet en tout cas li nga xam dal daal nañ ci moy ndox euh, santé

Abdou Gningue di au conseil collectivité territorial ci taxal liggéey bi nga xam ne ñëw na fekk réunion bi mais waa Thiénaba Kajoor waaye Mbuur waa Thiénaba Gosa ñoom ñëpp teew nañ pour jëmmal bis bi nga xam moom am moom la seexu Thiénaba euh, di euh, santaane muy Baye Abdourahim Seck yàlla na fi yàgg ci wér loolu en tout cas ñu ngi koy jaajëf lu baax moom nag li nga xam ne moom la gën a insisté mooy mbas fi nekk muy pandémie Covid 19 nee na jël matukaay yëpp boo gisee li ñu laaj ci masque laaj ko ci gel alcoolique ko ci raxasukaay aussi laaj ko ci gendarmerie parce que dañu bëgg gendarmerie euh, gunge ñu que képp kuy ñëw Thiénaba daal ñu ngi lay wax ni boo ñëwee takkoo masque jarul nga ñëw parce que duñu la bàyyi nga dugg Thiénaba Thiénaba moom ku fay ku takkul masque moom bàyyi boo nga xam ni di nga di nga gàmmo jafe yam koy ñaanal fan wér gu yaram ak fan gudd mais mi ngi incité baax a baax ci ñu moytu ñu ñu ñu respecter les mesures barrières mooy masque yi mooy distanciation yi mooy aussi euh, raxasu bi dégg nga yooyu yëpp ñun comité d'organisation jël nañ ñetti téeméeri jeunes yoo xam ni dañ leen dugal ci biir dëkk bi

Nous mën en taxaw assister de venir partager avec les chefs de service et le préfet du département de Thiès que nous saluons euh, ce, conseil départemental de développement. Nous saluons vraiment l'attitude de M. le préfet de du département de Thiès, vraiment M. Moussa Diagne. Il, est vraiment, il a bien géré l'activité, la réunion, vraiment les points, a, on a parlé de tous les points saillants les points on peut résumer ça en quatre points. C'est la santé, c'est l'hydraulique, l'eau, c'est l'électricité, mais aussi c'est la sécurité. Et aussi, nous avons tenu compte de cette pandémie Covid-19. Je crois que euh, le contexte de la 141e c'est un contexte particulier parce que nous vivons, nous traversons la pandémie qui n'a laissé en rate aucun État. C'est mondial. Donc, mais au niveau de Tchanaba, le Khalif de nous a instruit, a pris euh, les devants, nous a demandé vraiment de tout faire pour que euh, ceux, qui viennent, les pèlerins qui viennent à Tianaba, portent leurs masques, mais aussi la distanciation, respectent la distanciation, mais aussi respecter le lavage des mains et vraiment faire en sorte que nous, on aura euh, gamme de 100 0 euh, cas de Covid. Je crois que ça, c'est euh, les directives du, du, général de Tianaba, mais aussi les directives de, son ex, monsieur le Président de la République, du ministre de l'Intérieur, aussi du ministre de la Santé. Nous allons les respecter à la lettre pour que vraiment les gens viennent à, les gens viennent à euh, passer un bon gamme, retourner sans Covid-19. En tout cas, nous, avons, nous, avons, nous, remercions encore tous les chefs de service euh, départementaux, en, tête le préfet du département, mais aussi nous demandons, nous prions pour que Dieu euh, donne longue vie et bonne santé au Khalif général de Abdelrahim Sek. Mais aussi, nous n'oublions pas ce que le, euh, général, le défunt Khalif général de Tianaba, a fait dans les gammes précédents, aussi, a fait pour Tianaba. En tout cas, nous remercions tout le monde. Nous saluons la grandeur du Khalif général de Tianaba, mais la grandeur de toute la famille euh, sec de Tianaba, mais aussi les autorités étatiques, les autorités départementaux et aussi au niveau de la région. خرجنا به من كل ضيق وخمتنا خرجنا به من كل ضيق وخمتنا دخلنا به في ظل لأمن وعصمتنا عبدنا به لله في أصبح نعمتنا लाली गुम कुलो लाल